asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi njabootug lislaam waa kër cheikhul xadim ngi am mbégte di toog ci jataay bii jàkkaarloog jëmm ji nga xam ne mboolem murit jullit yi seenuk ñaan mi ngi jëm ci ñaanal ko yàlla yàggal ko fi lool te dolli ak wéram muy ki nga xam ne yitteem jëpp teeloon na koo xamal nit ñi jenn yitte la am mooy liggéeyal Seexul Xadim yàlla na ko ci yàlla jàppaleel boppam ba ni mu ko yéenee mu defee ko ni sun borom may ñu ndam ci topp ci ginnaawam te lépp lu ñu digal ñu def ko mu di Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér moo am nag kaddu yoo xam ne. da koo fas yéene yëkkatiloo rakkam jii di taalibeem yore kàddoom di cheikh Mouhamadul Bachir moom cheikh Abdoul Khadir mbake mu jëm nag ci mbooleem jullit yëpp waaye rawatina nag taalibey Serigne Touba yi nga xam ne ñoo yaakaar Serigne Touba ñoo xam muy njabootu Serigne Touba ak boppam gi ak seex yi nga xam ne seen maam ñoo àndoon ak Serigne Touba ak taalibe yi nga xam ne yaakaaruñ lu weesu ndimbalu seexul xadim tey déglu ndigal ñoom ñooñu la Serigne Mouhamadul Mountakha fas waxal. kon ñun ñëpp ñu maa si déglu Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xamné moy wax ci kaddom lillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala alhaadi al amin sayidina wa mawlana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwan wa tamkin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ci ndigalul cheikh mouhamadou muntaxa mi nga xam ne tey moo fi jëmmi Serigne Touba ci tey ci kaw suuf ñuy ñaan suñ borom mu yàggal ko fi lool tam ànd ak wér ba naal yi mu am ci liggéeyal Cheikhul Khadim te génn ko suñ borom may ko kàttan ko wér may ko ak fekk ak wutal ba lépp mu mottali ko ni mu ko bëggee ci barkeb Serigne Touba ñuy xeeb lool kàddu yi rek yii ñu jox ndigal ñu yëkkati ko ngir delluwaat ca. la suñu borom waxoon ci alxuraan ci saxaaba yi seen digg ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wala tarfau aswaatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri baadikum li baadin an taxbata amalukum wa antum la tashcuruun إن الذين يخضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا ينقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم العلماء ورسل الأنبياء يكون في متوقتي ما في جميع سرين توا وعمودون رسول الله صلى الله عليه وسلم كون كادوني يكتي لنكو يجفن غيرنغل عندهم بلم ñu ñaané tam nim ñu ko waxé ñu jiem ko waxé nim ñu ko waxé kon sëriñ bi néna ginnaaw bu sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba mi ngi nuyu bokk jullit yëpp di nuyu bokk taalibe yi murit yëpp nee na nag di sant yàlla bu baax ci kàddu yii mu leen di bëgg jëme kàddu yi nag la ci jiito mooy sant yàlla ak sant Serigne Touba di xamal ñëpp ne na ko daa waxee rek amul bëgg-bëgg ci jëmmam amul bëgg benn bëgg-bëggu àdduna lu weesu jël léppam jox ko Serigne Touba leesu ak bëggam yëpp mu jeexal ko ci Serigne Touba loolu nag ñëpp maase nañ xam ko ci moom loolu nag nee na mi ngi sant yàlla bu baax ndax mësta séentu ne jataay bii mu toogatee dana ko mës a toog waaye nag ci dogalu suñu borom ni ko yàlla wax ci alxuraan allahu alamu xaytu yajcalu risalaati yi kon nag bi suñu borom dogalee loolu ci moom nee na yitteem jëpp naka jekk mooy liggéey Serigne Touba rawat liggéey liggéeyal ko ci xam-xam ndax loolu day yitteem ju ko yàgg ñor nekk ci xolam nekk ci biiram kon nag bi suñ borom dogalee lii ci moom ci bëgg-bëggu Serigne Touba mu jënn yitte wala benn bëgg-bëgg lu weesu liggéey Serigne Touba ci loolu ci loolu nag nee na mi ngi sant yàlla bu baax di santitam itam njabootu Serigne Touba gi nee na ci nii leen suñu borom boole ak ni ñu rafete njortu ci moom ak nongol gi ñu ko nongol rawatina nag lépp loo xam ne xam nañ ne xam nañ ne bëgg-bëgg ma ñoom ñëpp ñu maase ci ànd ceeg moom doy loo ko ci. nee na kon loolu mi ngi leen ci sant di ñaanal Serigne mi nga xam ne moo doxal loolu seen diggante yàlla leen fay ñu yàgg ànd moom te yàgg topp ci ginnaawam loolu nag ne ñëpp maase xam ne lu ko ñor la loo xam ne lu dugg ci biir xolum la kon nag ndigal li weesuwut nee na mooy daare ji nga xam ne somb ko muy loo xam ne daare Cheikhul Khadim la. mu yite ju ko yàgg ñor ba yàlla dogal lii kon nee na amul benn yitte wala lenn lu ko ñor lu may lii mu fas yéene nag tàmbali ko incha allahu rabbil alamin eh, àllarba ji nga xam ne mooy dëppook ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmmu ndax kon xam na ne Cheikhul Khadim lépp lu mu mos si tàmbali ci weeru gàmmu la ko daa tàmbali wala weeru koor dëppook juróomi fan ci weeru décembre kon ci bis boobu la bëgg a liggéey bi. mu di ko yëgal bokk jullit di ko yëgal bokku taalibe yi di xam le ne itam mi ngi sant yàlla bu baax ci tawféex ju ko suñu borom defal ci lii nga xam ne moo di sonc naa li Cheikhul muy daara ju mag joo xam ne Serigne Touba moo waxoon ne bëgg na mu doon daara joxoon fu ne la nit di bàyyi ko ci àdduna di ñëw di fa jàng kon nag tawféex ju ko suñu borom defal ba yàlla def liggéey bi mu fës ko yéene àggale muy loo xam ne itam ni moo ko waxee. naan la woon woo xam ne maa nga tàmbali ci Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu tàmbali woon liggéey bi ba suñ borom def mu fas yéenee mot li ñi nga xam ne ñoom la fi ñoo ko fi wutoon ginnaaw bi ndax ku ne xam na ne euh, Serigne Saliou Mbacké moo àggale liggéey bi ba ubbi woon daara ja ginnaaw bi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara am ci yéene ginnaaw bi itam Cheikh Sidi Moukhtar amaat ci yéene ba wax la woon ko ko loolu lépp nag mu fas yéene seen yitte yooyu yi ak seen naal yooyu nga xam ne moom naka jekk ab liggéeyam ci Serigne Touba loolaa ci jitu yàlla def mu fas yéene ko tàmbali ànd ko taalibe Serigne Touba yëpp fas yéene itam nag lépp loo xam ne nit jox na ko ko wala moom ko dana ko ci def ba ci desal dara kon nag ñii ñaan ci barkeb Serigne Touba liggéey bi ni mu ko yéenee mu àggal ko jàmm daara ji nag bi nga xamee ne Serigne bi tàmbali na ko. moo joxel boppam tur tur tudde ko mu jëmoo Cheikh Ahmed al li tarbiyati al islamiya wa takwin loolu sëriñ bi moo joxe tur yi parce que yéen a tudde noonu mu nekk complexe islamique bu mag boo xam ne day ëmb daara daaray alxuraan ëmb daaray nekk université ci biir ci biir loolu itam nag bi nga xamee ne tàmbali na liggéey bi ci la joxe woon ndigal waa daairatu rawdu rayahin bi nga xam ne sëriñ ahmadul badawi moo ko jiite ak mboolem kuréel yi nga xam ne ñoo yëngatu ci dëkk bi ci wàllu xam-xam ñoo ànd ba liggéey ci liggéey bu rëy liggéey ci programme daara ju rëy daara joo xam daara alxuraan ndax sëriñ bi ne nañ ko jiital ndax sëriñ Tuubaa luy su koy tàmbalee ci alxuraan la war a tàmbalee ñu liggéey ci programme boo xam ne daara ji day nekk daara cosaan comme ni ñu daa jàngi alxuraan ci biir lool itam li manqué won ci daara yii te doonoon cosaan ci yoon wi tàbbal ko ci biir mooy tërbiye dana dana am xelaqatu zikr di di tudd yàlla eh, bokk na ci itam danañ feex ba di leen tàggat ci ñu jàng xasida di ko mokkal danañ leen tàggat itam ci yarul islam ba ñëpp itam fo waxtu juli jotee ñëpp dem ci jàkk julli yi loolu lépp ngir bëgg tabax aw aw xeet la jublu loolu itam def nañ ci liggéey ci wàllu daar ji nga xam ne mooy collier bi nga xam ne moo war a yor wàllu ci université bi itam liggéey nañ ci liggéey yu rëy ci ay fànn yu bokkut yoo xam ne Euh, def nañ ko ba loolu itam euh, liggéey ba euh, taxaw nañ ko ba tëral ko ba programme njàng ma lépp àgg na muy kulliyatu dirasat al islamia wal luxatil arabia ak mboolem yeneen faculté yi nga xam ne mooy jàngale métier yi nga xam ne yoon yu baaxoo nañ ko te dëppoo na ak dëkk bi ñu def ko ca kon daara jooju nag bâtiment yu bëree bëri la ci xayma nag war naa toll ci 37 milliards loo xam ne li koy liggéey lépp moom la doon ba mu àgg waaye nag sëriñ bi xam na ne euh, xol xol yi nangu nañ sëriñ Tuubaa kon nag sëriñ Tuubaa lépp lu mu bëgg rek suñ borom dana ko defal la Cheikh Ibrahima Faty waxoon waxoon ne sëriñ Tuubaa du santaani mukk lu am te du sant mukk lu ma du def kon nag sëriñ bi nee na xam gi ma xam ne sëriñ Tuubaa lépp lu mu bëgg dana ko am moo tax amu ci dara lu may xalaat mu wóor ko bu ko sëriñ bëggee rek la am kon mag mi ci ciy soñ ñëpp. ci biir loolu itam sëriñ bi xam la ne ne li jëm ci wàllu liggéey bi entreprise bi nga xam ne moom la jox liggéey bi mu du ko taxaw lool mooy entreprise bi tudd Touba matériaux te Abdoul Ahad Ka jiite ko ñoom la sëriñ jox liggéey bi ñu du ko taxaw ci biir loolu itam bi nga xamee ne sëriñ bi joxe ne ndigal diirub ay weer ñu ngi ciy liggéey ci tàmbali palan yi ak architecte yi def ko ba lépp àgg bi lépp àggee itam nag. ma ci waxtaanee ak sëriñ bi laaj ko ci ndigal ngir bëgg liggéey bi ndax sëriñ bi ba mu koy tàmbali kat dafa waxoon ne yi ma ci soxla dem mooy na jub te wér te leer mm-hmm. loolu nag ci loolu nag boobu ba tey ñu di ci liggéey liggéey boo xam ne ñu ngi ci doon topp ba yàlla def na la ci ëppoon solo àgg na ci biir loolu itam ngir bëgg lépp gën a tegu ci yoon ak jéem a roy na sëriñ Touba daan doxale ndax jumaay njaariñ bi kon xam na ne ci loxol Cheikh Issa Diagne la ko tegoon waaye jumaay Tuubaa ji itam bi ko sëriñ bi santaane daa jël ak Cheikh Ibrahima Fati def ko mooy jëwriñ ji mu jël sëriñ Bakk bu soo jox ko ndigal ne ko lépp lu jëm ci lu koy xeblaat teg naa ko ci sa jël ak Cheikh Mouhamadou Moustapha ak sëriñ Balla Coro wax leen lépp lu lijjanti ay kayit ak lu ko taxawal ba bi taxaw loolee itam teg naa ko ci seen loxo jël ak Cheikh Mouhamadou Fadil. ànd ak way juróom ba masamba Massamba jox leen ndigal ca carrière ba noonu la ko sëriñ Touba tërale woon loolee itam nag moo tax ma tànnaat euh, sëriñ maam Thierno Mbacke mii nga xam ne sëriñ bi da leen a joxoon ndigal tudde leen al jabhatul muridiyya lil ilmi wal amal muy kuréelu taalibe di daayira bu mag boo mboolem ay ingénieur yoo xam ne lépp lu laaj la lu mu laaj ci xam-xam. ne ci seen loxo lu ñoom nag laa tegaat lépp ci seen loxo ñoom ñoo saytu lépp lépp lu ci jëm ci taam bu njëlbeen gi ba ci mujj ga ñoom ñoo koy taxaw di ko saytu te eh, def nañ ko ci ngeen xam ne li ñuy wax kafa am na ci ñoom mooy doy nañ ndax liggéey moom la ci ëpp solo mooy loo xam ne boo ko defee xelu ñëpp dana ci dal te ñëpp xam ne ñoom ñu ko yor ñu jub leen te wér nañ te dara itteelu leen ci lu may liggéey Sëriñ Tuubaa moo tax ñu tegaat loolu ci seen loxo kon nag ci biir loolu sëriñ bi nee na. mingi ngi wat bax li nga xamne ne ndigalu Serigne Touba la ndax Serigne Bakki Bousso mo bind ci ay bindam leral bi nga xamne Serigne Touba ñibi sene Touba mu wax ci bir bindu mané haza wa innahu min jami' al muridin ali sheikh bamba al marhum wa atbaahi wal mutaalliqina rijalihim wa nisaihim kibaarihim wa shixaarihim ammatihim وخاصتهم إلى حاكم الحكماء ورئيس الرؤساء وحكيم العلماء ميشي بروي بوب موفنكون ومن شواهد تلك الملاحظة أن الشيخ رحمه الله لم يبق له عين وفاته من حوائج الدنيا فيما نعلم إلا ثلاث طلب من الدولة الفخيمة إحداها وسكت عن الباقيتين إذ لم يجد لهما فرصة فاستعافته بما طلب ألا هو المسجد الجامع بوطنه توبى المحروسة وأما اللتان سكت عنهما فالأولى الحج الذي يعده المسلمون من فرور أعيانهم كالصلوات الخمس وصيام رمضان لا يشقطه عن مسلم حيث كان من أقطار الأرض إلا عدم الاستطاعة وقد أعد له زادا بالغا إلى آخره وثانية مدرسة تكون رحلة سنغال إليها في العلوم العربية شرعيتها وآلاتها وقد أعد لها كتبا لا توجد عند خيره وفتيانا متأهلين كون لولو فيرنديل ديالنا سيرين توبا بيمي نيبسي توبا نيتي مي ديف باي بو جيك موي جمعه توبا جي nga xamne wotu wonnako bu mooy bëgg dem Makka loolu itam ku ne xam ne ne amoon na ci gàllankoor ndax ndaxte iqaamatin jabriya bu ñetteel ba mooy daara joo xam ne daara ju mag lay doon joo xam ne fu nit mën a bàyyi ko ci Sénégal ak biti Sénégal day ñëw di fi jàng si mu ne ci biir loola itam sëriñ bi waajaloon na daara ji lool ba waajaloon sax ña fa war a jàngale waajaloon na ay téere yu bari yoo xam ne jëndoon na ko ngir bëgg bu noppee daara ji ñu def ko fa kon nag mébét moom mii la Cheikh Mouhamadou Mountakha ñëw ngir fàttali ko taalib yi parce que yéene tàmbali di leen fàttali itam nag ndigal li nga xam ne Serigne Touba ci 1926 bi muy woote jumaay Touba ji ca booba autorité coloniale yi fi nekkoon bëgg gàllankoor liggéey bi tax ñu teg Serigne bi ay sart yu bëree bëri yoo xam ne neexut a boo ko ne ca sart ya dañ ko wax ne ko faw nga dajale xaalis bu bëri boo xam ne entreprise bi ko yor. daa leen mën a garanti ngir lu ci mën a xew ëllëg ñoom seenu xaalis du perte bi loolu amee nag sëriñ bi yónnee wootale mboolem kuy kilifa ci yoon wi ak mboolem kuy cheikh ci wi ba ñëpp daje mu ne maa ngi leen di nuyu di leen jotle ndigal loo xam ne fu jëm na ko fu mooy maa ngi leen di digal lépp loo xam ne bëggati ngeen ko wala ngeen sombati ko rawat na lu mel ne néegub yàlla bii na ngeen ci jéem la ngeen man ak la ngeen mënut te lu ngeen ci mënut ngeen dem laxasaa yu wuti ko ci anam gu sell te fa ca seen kattan yam ngeen toog xaar fa say jaalullahu baada usri yusran tarik waay maa ngi leen di wartandiku loolu lépp ndimbal kon lépp lu ngeen bëggati ngeen ci sukkandiku ci seen bopp te leen leen wartandiku loo lépp ndimbal loo xam ne bu leen fajalee seen soxla yit daañ leen seen daañ leen xañ seen ngor xañ leen seen jom tilimal seen diine daana yett ngi yoo xam ne nag képp mu nekk ci yow ku war ngaa fexe ba laxasaay ko ñàkk képp koo xam ne nekkul ci nag war ngaa fexe ba laxasaay wuti ko mu ne yett yooyu nag bokk na ci la koy may mooy fexe ba man sa bopp fexe ba moom sa bopp fexe ba ñàkk sa bopp mu ne man sa bopp boo ko defee mooy lépp loo xam ne mun mun mënta ñàkk ci sa yitte na nga fexe ba laxa saay wuti ko ba doon nangu kenn ku lay jëmale feneen fudul fudul fudul fa bëgg ñàkk sa bopp nag mooy da ngay fexe ba kenn doo nangu kenn ku la moom ku dul yàlla mm-hmm. wala ngay nongu kenn koo xam ne dana la not ba fa ku neex mu jëmale la fa ñàkk sa bopp nag boo ko defee neen doo jël sa yitte di ko weer nit ñi di ko weer ci doomu aadama yi kon dangay fexe ba mën a soof nee na loo naan la jiitu ca la koy maye mooy lépp loo bëgg te mënu ko ñàkk nga feex ba ko soof bu ko bokk na ca la jiitu ca koy xañ it mooy fexe ba ñàkk man a soob kon nag loolu ndigal la loo xam ne Serigne moo ko santaane woon kon Serigne bi nee na mi ngi digal bi yëpp ni ko kilifaam yu jëkk daa defee lépp lu ko ci nit indaal indil daan ko ci defal kon nag mi ngi koy yëgal mboolem ñu bokkal Serigne Touba liggéey bi di xam ne ne xam na ne ànd nañ ko ñoom. waaye mi ngi leen koy digalaat di leen ci soññ kenn ku ci nga soññ sawa waa kër yi ñëpp ku ci ne la nga mën ak la nga mënu nga fexe ba def ko ci mi ngi koy digal itam mboolem bokk yi nga xam ne ay taalibe lañ bokk ci yoon wi di ñëwoon Serigne ba tey di ko digal itam mboolem ñi nga xam ne Serigne Touba moo leen defar tofal mbooloo seen ginnaaw lañ yor Serigne Touba jox leen ko Serigne Serigne bi naan mi ngi leen ko digal di ko digal taalibe yi nga xam ne itam ñoo topp seen ginnaaw kon lu ci waay man na ko def te xam na lu mu ci def rek euh, suñ borom dana ko fay te Serigne Touba ko fay kon mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan itam bu ci waay def la waxoon ne bokk na ci njëriñe addiya dana fekk fu dara mu def fa dara dana fekk fu dara nekk mu ko dana fekk fu lu bari nekk mu barkeel ko kon nag mi ngi ciy soñ ñëpp di ci gërëm ñëpp di xamle ne euh, Serigne Touba lu ko waay defal rek sa bopp mu koy defal. ndax lépp lu mu bëgg rek suñu borom dogal na ko ba nopp kon nag ku am tawféex fexe ba bokk ca lee tax aajo ju faju war ngaa sante yàlla bu baax. àllarba jooju ma wax ci la sëriñ bi fas yéene ñëw ànd ak njabootu sëriñ Tuubaa yëpp ngir tàmbali liggéey bi ñu ngi ci woo ñëpp nag eh, fukki waxtu di diiseer na fekk ñëpp sëriñ bi tegal ba fa ma xeer wa barkeeloo ko ca na ko sëriñ Tuubaa defoon ba muy yëkkati jumaa njariñ ja وخونا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جرجف بوكي جولي ديغا خامني ньоญي تاولو اك بوكي طالبي ديغال لاغي نونو متسك تي لامينو شيخ محمد البصير waye joge ci ndigalul serigne touba cheikh mahamadul muntaha kon nak le serigne bi waxone li ngeen yor ba di ma ko sante maa leen ko jox kon lay tax ngeen jot seen àq ngeen yëg ne maa leen ko jox kon fu ab taalibe mën a ne ci biir réew mi ak bitim réew ku yaakaar sëñ Touba ak mbooloo ma topp ca gi sa ginnaaw sëriñ Touba rek tax mu topp sa ginnaaw ndigal lii nag bëggug sëriñ Touba la mu bind ko ci xaside yi waaye baaxe ko Cheikh Mahamadul Muntaxa mu bëgg sun njariñ bëgg sun ndimbal tax mu woote ko kon murit yi fu ab murit mën a ne fu taalibeb sëriñ Touba mën a ne bisub allarba bii yemoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmmu dëppoo ak juróom-ñuy fan ci weeru tubaab sëriñ bi di tegali boppam xeer wi fu ab taalibe mën a ne ñëpp war nañoo fobow ñëw fekk si sëriñ Muntaxa bu geestoo dana ko wóor ne fanweri milliard ak juróom-ñaar yi muy tëwoo Serigne Touba mo waxalon bopam ne suñ borom mooma mom lo aduna mom lo ma alaxira te li ne ci aduna ak alaxira la ci gën yonti bi ali salaatu wasalaam tan nako ko sama loxo ku am xewal Serigne Touba tax bëggug Serigne Touba la nali Serigne Touba la mébéti Serigne Touba la Serigne bi beug ñoo dimbalee kon ñi ngi ci sentu ñep fu ab seexub Serigne Touba mën ne na nga wo sa mbolo ànd ak ñom ñëw top ci ginaaw Serigne Mountakha àllarba mu tek xeer wi mu tabaxal ci Serigne Touba university bi Serigne Touba defar sun aduna ak sun wassalamu alaykum wa rahmatulah rahmatullahi wa barakaatu bil mustafa li banal qudus madrasatan biha yazulu al aza wal jahl wal kabadu bil mustafa li banal qudus